Assalamu alaikum, je suis à travers Niahar 24 Je suis tudd Koumba Diallo madame Diouf euh, Niahar fii je suis prof de maths SVT mais je suis de Thiès. voilà euh, Niahar, euh, dañ ma fi affecté en 2013 may suis benn dëkk bu nekk à peu près à 7 kilomètres mais suis logé Niakhar bi suis logé fini, nii waa Niakhar tamit ñu accueillir ba ma nekk fi à l'aise bu ngeen gisee ma mën leen dugg mën leen ñeme kanam boobu ñoom ñoo ma ko wan dem ba boole ma ci seen bopp ubbil ma seen ay buntu vraiment def ma comme comme ku bokk si ñoom daal moo tax ma mun a am ak ñoom entretenir ak ñoom relation yi am yëpp tey loolu moo ko waral. Euh, sama relation ak jigéen ñi en particulier sama ay collègues les dames ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo dëkk fii ñoom ñoo ma yaatal wan ma la voie à suivre. Euh, ak sama tata tata soxna bi ma ñëwee fii vraiment xaw ma fi kenn euh, xam nga tumuranke si dëkk dafa gaaw à condition que nga bañ a nit ñi mais moom bi ma ñëwee wan na ma nit ñi dalal na ma wan na ma yoon bu may jaar ak nit ñi ma war a mën a àndal loolu moom moo waral lii yëpp tey <laughs> waaw monsieur Diouf ñi nga xamante en 2009 man ak moom UCAD lañ tase man ak moom foofu lañ xamante rond point UCAD Euh, dama doon dem di jàngi man j'étais en première année bu ñuy xamante moom il était en licence léegi bi may romb am kuy laajte benn fac fac lettre je pense moom la doon laajte moom xamu ko il m'a interpellé mu ne laajal xale bu jigéen bi ba xam léegi bi may romb mu laaj ma mu ne xale bu jigéen bi eh, man euh, dégguma woon puisque dama takkoon ay écouteur mu daan ne eh borom verre yee borom lunette yi li ma ne quoi après si laa wuyu ma gestu mu ne ma kii day laajte fac lettre ba xam fan la. léegi ma gëstu ma expliqué ko yoon bi ba pare ñun ñu continuer ñun ñaar euh, chemin bi ñu ànd euh, boobu ma maa ngi fasek mu ngi fasek léegi man ma ñëw ma dugg def cours moom it aussi mu dugg def cours bi ñu génnee am récréation mu ñëw fekk ma si lii bi du moins ci hall bi ñu waxtaan suñu xamante daal foofu la ko foofu la commencé du moins. relation bi noonu la commencé peut-être lu yàlla tuddoon la rek le hasard n'existe pas. li ma marqué woon ba taxoon ma ma taamu ko ci góor ñëpp moy euh, amone na patience ak man amone na sama yermande amone na sama compréhension yëgoon na ma aussi lolou nak je pense que ni bu lako bu lako gor defale en plus de beug la lolou mom amo amo leneen loy loy xaar ci mom parce que jigen lolou rek la soxla kuko beug yek ko jox ko cëram am patience ci mom parce que ñun mom ku nek xamna jigen ak ay caprice am jigéen ak ay affaire am ak yep man ak samay morom ñoyam donc lolou mom bu ko gor amé ci yow rek. vraiment am am na lépp daal voilà maa ngi koy maa ngi koy ñaanal parce que en plus de amur bi ma jox voilà ak deux princesses yi nga xam te ne nii moom la ñu yàlla may maa ngi ñaan yàlla guddal taxawaay bi di mooy yàggal taxawaay bi guddal fan bi ñu yàgg di ko féete ay années yu bare bare bari yàlla bàyyi fi njaboot gi ñu mën dund relation bi ay at at at ci kanam yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def Voilà, bonne fin de Saint-Valentin, mon amour, mon papa, mon confident, mon tout. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci beaucoup.